Sénégal 4 TV yow yaa ko moom ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV il le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Je nga yéen yéen Sénégal yéen gaaw a mais je la ko wax de Sénégal premier mi-temps la tàqali ko Algérie di question nag supporter la question dara Algérie ñoom xam nañ ne équipe ñoo xam nañ loolu Algérie bi ñu gañee kan la ki mu gañe woon euh, fële mooy Libéria xaw ma ñoom bi muy dem Carcassonne ñoom bañ gañee Libéria lañ commencé di kat mais ñoom seen football fayoon na biñ gañee Libéria mooy 3-0 yoo xam ne 4-0 boobu ñoom seen football fayoon na mais Algérie baaxul Algérie seen équipe yëpp ñaar la ñaar mooy seen numéro 7 bi seen numéro 9 bi mooy ki nekk euh, Manchester City ak seen néew bi jeex na boo tëjee fóol boobu doo kaw seen néew sart bi bu tourné dootul fóol bi dootul dox mais damaa bëgg ngeen dala seen xel xam ne Algérie baaxul waaw moom moom loolu moom maa ngi wax Algérie baaxul te ngeen xam ne Algérie baaxul. <laughs> non du loole du loole xam nga bal bi rek affaire bi moom bal bi daw rek. Eh, ku juum tamit dañ la koy def nga dem ñibbi waaw. logique laa la waate maanaam logique yu football wala seen joueur yi comme parfaitement joueur rek joueur ak lu def lim li muy def yëpp Sénégal xamut ak kenn kenn kenn Sénégal dèjà jamono ji moom équipe Europe bi sax am na ñoo xam ne su waru ta taxaw ak waxuma la ak Afrique parce que seen joueur yëpp dañoo am talent. waaw kay loolu loolu laa parce que soo xoolee même chose si. Cameroun moom ñu éliminé parce que dafa waxoon ne Sénégal mooy favori euh, gars yi di ko bañ parce que da lay gëmloo sa bopp ba nga ñëw naaw mu yàqal la ainsi mu ngi xool nu ñu def ba nga classement pas changé classement parce moom mu mënti wax mënti wax tamit si yi rek mun loolu laa wax fool moom ku la gën a respecté occasion yi la la la de waaw naari moom mooy loolu mais daaw ñoo leen tegloon équipe bu ndaw ñu nii leen 2 waaw Algérie moom depuis coupe du monde bu mu demee woon quart de finale boobu dafa jaloore boobu ba léegi yaakaar naa taxawaatul comme ni mu taxawee woon. man bu doon sam bu doon man maa doon classé sama sago damay jël booy boobu teg mais Aliou dafa xaw a ragal du jël risque bi di di di jël booy boobu di ko teg ci ci kii bi axe bi xam naa moom du jël risque bi di ko teg foofu Aliou Cissé dafa ragal moom moom bu la wóoluwul bu amee xel ñaar si yow rek du du du la teg amul fit quoi waaw bu doon man maay doon classe booy boobu laa fa teg mais Aliou Cissé di ko du teg booy boobu de waaw du ko teg de xalaatu ko sax. waxee rek booy boobu loolu mooy métier loolu loolu lañ ko formé ba pare si club bu baax la nekk waaw Grèce la nekk waaw axe mooy métier mais Aliou Cissé boobu amul fit boobu di ko teg de xalaatu ko sax du jël booy boobu di ko teg se axe bi day ragal. waaw amul fit bobu coupe du monde bi lol moko ko bo boo bi buñu encaisser contre Colombie waaw fofu Sabaly dafa blessé amna na benn booy bu nekkon ci ci si kii bi ci touche bi fàtte naa tour bi sax boy bobu nonu nekk nekk ka Adama meng mu yon ci touche mais wóolu ko muy nekk di hésité kan la war a xam lu mu def. onze départ bi mom xamna naa mo moom Aliou Cissé lu muy àndi mom yomb na Edouard Mendy lay tek ci camp yi waaw en défense Koulibaly dafay tek eh, ak nu tudd sax Koulibaly ak Kouyaté bon latéral droite xamna Wagé la fay tek latéral droite ki la fay teg Wagé gauche Sabali bon si milieu bi mom xamna naa ne Krépin Diatta moo fay nek ak xam eh, naa moom Alfred Ndiaye lay andi de suñu ma yaakaar Alfred Ndiaye lay andi de Ake eh, Jalai andi eh, ke Ganagai Gueye ak Krépin Diatta ñooy nekk bi bon si bon lu ma gis si ci entraînement gis mo fa Ismaïla Sarle de xaw ma nag am lu mi demee Diaw lay teg foofu teg Mbaye Niang neuf Sadio Mané nek ci gauche bi waaw loolu la fa gis ko waaw gasama gasama waaw gasama baax na de waaye man moom wage moo a gënal gasama man moom pour le a nii wage daal moo ma gënal man daal saa yi changement bi yëpp ànd naa si man daal fenn rek foofu la ànd na moom moo Kouyaté bu a tegal si aksi bi foofu daal loolu daal mooy coow man daal di si la si kaw moom Diao Baldé ak Sadio Mané ak Mbaye Niang waaw foofu baax na milieu terrain bi tamit Krépin ak Arfane Ndiaye moom Arfane Ndiaye moom dana ñëw suba moom parce que Aliou Cissé boo déggee ni muy wax moom Arfane Ndiaye foo jaar football suba moom am naa si xam naa nag boo dégg Pape Alioune Ndiaye moom xam naa ay deuxième mi-temps yooyu lay dugg fekkee day dugg moom deuxième mi-temps lay dugg Aliou daal man daal foofu rek daal loolu daal kese kese kese foofu mooy problème bi ñu assi bi daal bu ñu indiloon boy bi daal bàyyi moom lépp sawa jamono jii naa ngi sonal ak jamono jeex na ba subaa ngeen xam loolu daaw benn naar gañewuñu ku dafi bi passé benn naar gañewuñu te xool bañ bañ demaat ba suba incha allah loolu bu njëkk la woon léegi jeex na léegi léegi léegi nit ñi ñu nit ñi ñu ñi ñooy yeewu ci football naar football naar contre attaque la woon léegi nag nit ñi ñun yeewu nañ ci waaw moom laa lay wax ne la Algérie amuñ ñoom ñoom xam nañu amuñ équipe fi ñu doon seen entraîneur bi seen entraîneur bi Eh, yàlla wax dimbali dañ ko doon dàq bi ñuy bi ñuy gañee Libéria dëkkam boobu dañ dañ ñëwoon bu niiwee sax dañ koy dàq yàlla wax dimbali rek waaye bu niiwee sax dañ koy dàq mais la mas seen dernier match kii ka kas coupe d'Afrique bi ci la commencé ñëwaatee mais Libéria ko dóor dëkkam 2-0 mu dem Libéria gañe ko Algérie baaxul balaa nga xam ni baaxul suba ngeen xam suba suba ngeen xam ne incha allah ngeen baaxul. waa ji entraîneur Algérie bataille psychologique lay def boo gisee muy lim équipe bi yëpp pour waa ji changer classement bi mu mu mën a am faay waaw looloo tax muy jéem a teg xel quoi day jéem a teg xel noonu la demee quoi waaw mais sa waay yi na gëm boppam rek xam lu muy def rek waaw waa ji day jéem a teg xel waaw waa ji wax gars yi dañoo tiit boo gisee ñu xaw a tuuti parce que naari dañoo xaw sak sak ane ñom ñoo ñuy sonal quoi te ñom dañoo topé mboro sak tirage la ñom dañuy ñëw bok ci coupe d'Afrique bi. wala Sénégal moom équipe bu baax la yoré mais même kan bé passé yoroon nañ équipe bu baax mais kan balee passé Aliou Cissé moom mo yak lepp parce que moom waa dafa ñëw teg bloc ba moom mu toog foofu diko ko xool del ben risque dugal attaquant bu baax ba paré aussi gardien de suñu gardien mi tam dafa déssé baax quoi parce que gardien gardien mo lay mëna gagner ci série waaw boo xoolee Ablaye Diallo dafa xaw a yàmbar dafa yàmbaree parce que boo xoolee série gardien bu baax moo koy parce que gardien il faut nga mën a sóob xam nga rek ñëw ñëw wax ak kuy tiire ñëw sóob ak moom ba mu xam nga rek nga xam ne day mën a trompé wu raté bal bi parce que boo xoolee ñuy dóor Sénégal yëpp dañoo dugal Sadio rek moo fa raté mais waa ji nekk fa di yàmbar yàmbar bal buñ ko dóor mu dem à côté loolu moo ñu rey. waaw ay ñun moom. ñu ngi wax ni ñëpp am confiance Sénégal moom gëm nañ coupe bi ñun coupe bi lañ soxla waxuñu waxu bii sax lu nekk rek da ngay def waaj fagaru moo gën faju xaw ma na ko jaay waxee préparé waaw parce que nit moom fi nga jaaboon jàpp ne fa lañ lay jaar rek lañ lay jaar waaw am na équipe yoo xam ne leer na lii la ñuy teg ay classement Barça na lii la ñuy teg match li mu rëy rëy loolu la ñuy teg mais joueurs yi ñoo am pas-pas Pastef dugg dóor waaw même suñ classé liñ classé waat sax di gëm ko dañ koy dóor. waaw ziar ku baax ziar ziar ziar de waaye mais nag ñoom seen bopp xam nañ ne seen équipe complet wul ñoom seen supporters yi xam man fi ma nekk presque fi may liggéey naar dong ñoo fa nekk ay algérien dong ñoom seen bopp ñoom xam nañ Sénégal la mën ñoom seen bopp dañ koy wax mais yow naka la naka la seen coach bi demee conférence de presse ñoom loolu ba léegi da leen jaaxal seen coach bi dem conférence de presse di ay jours. kon mooy war na ñoom ñoom seen xel dalul. équipe bi demoon coupe d'Afrique ak équipe du benn de équipe moo gën foofu si mosu am yëpp équipe moo ci gën parce que équipe bi nu mu amutoon moom lañ am léegi waaw parce que Krépin Krépin Diatta fu nekk di football foofu amuñ ko waaw ñooñu foofu amuñ ko fee nu mu amutoon tireur kii spécial ballon yi amutoon foofu waaw équipe bi moom moo gën bële moom coupe d'Afrique bi bee kay Ablaye Diallo kay bàyyi moo loolu waaw daf na grand max de waaye tiro bi la yàq Cheikh Boubacar waaye daf na grand max na si biir terrain bi. xam nga si bi si conférence de presse bi cax cax na gars yi si biir conférence boo ko déglu da ngay xam ne jour boobu euh, milieu bi moom. Badou Ndiaye moom da koy teg si banc bi parce que kële léegi moo moo gën a baax si kii bi quoi si défensivement kee moo gën a baax mooy waa ji quoi Alfred Ndiaye waaw loolu la quoi xam naa moom suba moom lay andi de et aussi kee dafa am benn carton te naar yi di seen football dañoo mën a tricher quoi. waaw loolu la de loolu la de euh, moom waaw man seetaan seen match yi am mais seen suuf bi moom baaxul. suuf gi moom baaxul mais ak militaire bi sax des naa dëgër moom mun hmm. daal fekkee Gassama moom compétir na moom moom laa gën a gis daal seen contact attaque dafa gaaw mais gis nga naar yi ah, ñoom seen góol bi baaxul eh, dañoo am problème gardien défense bi tamit xaw naa des parce que maa ngi déglu keroog si benn émission bu si naar yi si boppam seen chaîne bi ñoom ñeene seen problème naa mooy kii bi quoi défense bi ak kii bi parce que ñom ñu ngi doon wax équipe Sénégal dafa complet mais ñom seen équipe bi amna faible ci défense bi ak euh, ak gardien bi gardien bi dafa déssé na baax wa lool la quoi wa mais bo xolé man gasama moo gëna lon quoi parce que wagee wagee baax na trop mais dafa offensive de trop té naari bo offensive de trop mom bu ñuy attaquer rek moo moytu fekkee yow yëg nga bu ñu monter rek moy lool waaw. ci wax nga deug de man ban so lool lool mo gëron sax mais problème bi mooy Lamine Gassama est-ce que en forme carrément bu nekkee en carrément moom moom moo gën moom moo gën nga teg ko foofu quoi parce que te dafa offensive trop quoi. gis yow loolu gis waaw man de fenn rek laa da fenn rek laa d'accord ko Cheikh Kouyaté Cheikh Kouyaté warutoon départ de parce que am na boy bu nekk foofu loolu mooy métier parce que Cheikh Kouyaté milieu terrain la milieu terrain la instant am na booy boo xam ne nekk foofu kooku si défense mooy métier nan ñu tegal booy boobu nga xam ne booy boobu repère am yëpp si loolu la na teg booy boobu